pas mais li ñu gën a yéem mooy est-ce que li tax ñuy joxañ tuuma saa su ne ci njabootu làmb ci yu mel ni est-ce que njabootu làmb amuñu ci part de responsabilité parce que président bi fi nekk actuel mooy président Macky Sall euh, bi muy campagne ñan ñoo ko doon campagneel ci njabootu làmb xam nga loolu. histoire la làmb mosul tàggoo ak état ca Senghor. Senghor. jamono yooyu mbër yi xewoon ñoom lañ daa àndal Abdou Diouf ku nekk gisoon na jaloore yi mbër yi daan def di ànd ak moom muy recevoir mbër yi Ablaye Wade bi mu ñëwee moo fi njëkk a woo mbër yi ak écrit yi may leen xaalis bu dul jeex neen toppatoo leen seen bopp bi Balla Gaye xeexee ak ki nga xamante ni xuloo astafurla ak Modou Lo Ablaye Wade woo ci palais bi jubóole leen ku nekk gisoon na temps socialiste ñoomin yaa rax mu tubaabu joor ñu daan topp Tanor Dieng te loolu yëpp dafa rafet Macky Sall am na mbër yoo xamante ni ñoo ngi moom a faroon ba mu yegg si fii mu yegg si kon mbër ak euh, lële ah, yàgg nañu ak euh, état waaye lu jëm ci rébellion maanaam yor ay yet di dóore ak di xeex dafa sensible ci côté làmb parce tey bu la nit rombee fii rek tol ni ko neex ñu ni kii xanaa mbër la ponkal bu la rombee fii rek sol blouson yaaxar yaaxar yi ñu ne xanaa kii mbër la wala xoolal mbër ma la di dem yow kii ban mbër la waaw na dem bëre ji wala kee mooy ban mbër noonu mu noonu mu demee ci xelu nit ñi tey bu yu mel ni xemee ñu dem wut ay ponkal Gris Bordeaux wax na ko wax na leen kiñ ko doon nuróoleel saal ba mu am ca parcelle wax leen ni mu tudd pourtant Gris lañ ko tegoon noonu ñu ko tegee Gris noonu la ñuy gisee ku nuroog Balla Gaye wala ku nuroog Sa wala ku nuroog Tonnerre wala affaire ñu daan di mbër yaa nga fekk déedéet ñi dañoo gudd rëy rek mm. waaye gudd rëy taxut a doon mbër. Modou tollu nen doon roi des mm-hmm. ana bàcc seras mm-hmm. ana Siteu mm-hmm. ñooñu kenn réussite doon nga mbër doon nga champion kon gudd rëy taxul a doon mbër nañu moytu ku rëy rek ñu ni mbër yaa nga man maa ngi eh, woote wax ni nañu may jàmm réew mi. waaye tamit nañu bàyyi seen xel ni lii di xew nii guro bara yooyu buñ leen askane làmb parce que du waa làmb ndax xam naa ñu bëree bari nag ñoo xam ni seeni i tur sax listé nañ ko mi ngi ci télévision yi suñu demee dinañ aller vérifier dinañ xam ndax ñii ay mbër lañu wala duñu ay mbër te ñii mënuñoo nëbbu ñëpp a leen xam nañu dem seeti leen ailleurs te bañ ñëw ci secteur làmb seet leen fi voilà. jërëjëf Père ma lay jaajëfal bu baax a baax a baax. ci dalal waaw man itam maa ngi rafetlu wasaare parce que ñoom it li tur wi rek muuyu na borom ñi ngi wasaare tey ñu bëree bëri ñi ngi am ay expérience ci lamb wala di ci xam dara seen nangu liggéey ak seen takkute bi ngeen di def di ñëw seet si nit ñi jël leen ñu wax seen xalaat loolu bokk na ci lii wasaare. kon nag wasaare boobu tur wuyu na borom wasaare daal ca kanam. jërëjëf. jërëjëf.